aywa ñu dem ci euh, ñaari yéenekaay yu groupe Futur Média euh, muy l'observateur ak record l'observateur euh, gis nañu nag li ñu doon wax muy les violences ci campagne bi lee horrible histoire de l'enfant de trois ans brûlé vif à Kër Massar xam ngeen ne dañ faa sotti daal daal di taal jëppet ñu tàkk loolu nag fi mu ne nii moom gune gi euh, Talla sàll lay wuyoo ñu koy ñaanal suñu borom defal ko tan ak tawféex moom ak maamam Mamadou Sall euh, ña nga ca ci hôpital principal muy mbir mu doy moo xam ne l'observateur ñëw na ci des ba tey ci élection yooyu le mairie de Dakar ñu ne euh, mise au point des états majors gis ngeen nataal yi miin ngeen ko ci campagne bi Abdoulaye Diouf Sarr Barthélémy Dias Soham El di ni Diop Mame Mbaye ak euh, Doudou Wade ñoom euh, ñu ngi noonu ak itam euh, fële ci kaw veuvage drame sans fin sans fin pardon des femmes de migrants portés disparus mooy ñi nga xam ne dañu doon jéem a demi biti réew faf ñàkk seen bakkan seen ak njaboot gi ñu fi bàyyi rawatina seen i soxna nekk ci naqar tiis ak sëngeem ñu ne daal loole moo raw naufrage Euh, lu jëm itam ci euh, euh, CAN Cameroun 2021 staff des Lions donc dañoo ñëw ci cercle restreint bu Aliou Cissé ñoom nag suñu naataangoo yu l'observateur dem nañu xool yi ñi nga xam ne ñoom la Aliou Cissé jox bopp ñuy liggéey ak moom ci biir staff staff boobu ngeen baal ma collectif illicite collecte illicite de données Euh, loolu nag muy mbir mu doy waar moo xam ne itam euh, gis ngeen ko foofu euh, fait divers moom nag da doon capturer maanaam di dajale ay image yu doy waar yoo xam ne xaritam la mu koy jëfandikoo ngir rek di fay borom kooku nag Awa Cheikh Dieng la <laughs> wuyoo moom ak kii ñamu doon àndal jàpp nañu leen wa cybersécurité ñoo ko jàpp moo tax it mu doy waar aywa ñu dem ci euh, yéenekaay yu beneen yéenekaay bu groupe Futurs Médias muy record Abdoulaye tey dañ ñu baal bu ñaa plus fi amaat. dafa mel ni takku ngeen yor téléphone. ñu ngi koy lijjanti ma ngay remobiliser ay groupes am. ñu ngi koy suspension de Cheikhou Kouyaté Pape moom mën na koo wuutu euh, historique des Sénégal cap ñaar fukki match ak juróom-ñeent la ñu football ñu wulli leen fukki yoon ak juróom euh, loolu nag bëgg nañu mu nekk fukk ak juróom mbenn bu talaata jotee incha allah Algérie mi jëloon jëloon coupe bi ma nga takk bagage am fas ñibbi ñi nga xam ne ñoom la ñuy dajeel nag muy les requins ñoom daas nañu seen i bëñ nee nañu bëgg nañoo mat Sénégal hmm. waaye deru gaynde jësit du ko mat jëf euh, ma euh, El Hadj Malick Thiandoum ñu dem euh, dalal Oumy Samb ci météo en express muy dernier point bu information Oumy dafa tagalu tey côté kii à l'est